gan gi tey euh, muy Babacar Sembène euh, directeur exploitation bu agence de régulation du marché ARM ñu koy nuyu di ko dalal ci réew mi maa ngi leen di fay. bu weesoo dalal gi euh, tey ñu waxtaanee ci interprofession filière euh, soble gi ah. ñuy xamle ne fii ak lundi euh, danañu dakkal suspendre li nga xam ne mooy approvisionnement maanaam yóbbu soble yi ca fa nga xam ne foofu la war a dem ndax décision boobu boobule dëggal nañ ko. waaw li ma bëggoon wax mooy que ne décision boobu pour le moment ministère bi ñun jëlaguñu benn. décision officielle. Mhm. pour euh, matérialiser ko. maintenant euh, xam nga dañ nekk ci dans le cadre de ce qu'on appelle interprofession oignon IPOS. Mhm. ñoom aussi ñoom ñoo seq euh, organisation kii bi filière bi. Mhm. chaque fois bu jafe-jafe amee ñoom dañuy daje waxtaan jafe-jafe bi am mooy. am nga présentement euh, dañoo toll ci lu ñu naan pic de production production bi day ñëwandoo lu bari ci biir marché bi. Mhm. parce que période bii ñu nekk la parce que chaque fois de à chaque période de l'année euh, ci calendrier cultural horticole da ngay mois de mars avril c'est véritablement toujours des périodes de pic de récolte. Mhm. yooyu lañ toll nag. Mhm. maanaam liy ñëw dafa bari marché yi saturé prix day baissé raison pour laquelle ñoom ñu waxtaanoon il y deux semaines. on avait pris la la décision ak ñoom ñu ne ok dañuy réguler que camion dañu doon caara so duñu am fu ñu mhm. Mhm. loolu pour ñu mën a arrêter livraison yi loolu taxoon na marché xaw off tuuti. Mhm. loolu diire woon na une semaine léegi ñoom dañu bañ gaat loolu parce que euh, boo xoole aussi marché actuellement o li fi nekk ci en terme de stock aussi bari na. te prix véritablement c'est les prix sont abordables. mais à leur niveau loolu day créer benn baisse de prix parce que xam nga rek en en terme de négociation commerciale souvent baana baana itam ñu ne la mënuma am fu mu mënuma jaay kii day créer benn psychose au niveau de la production ñu yaakaar ne seen production dafay lamb. Mhm. loolo war ñoom ñu ne euh, pour ñu arrêter une semaine maintenant. Mhm. loolu lañ na ma euh, waaw ak lan. ma ne looloo taxoon ñoom ñu daje. ba ci mhm. démb. ñu waxtaan entre ñoom pour ñu pour arrêter pour une semaine. d'accord. malheureusement dafa xaw a coïncider ah, ndax du am ay jafe-jafe euh, ndax une semaine euh, dëgg la euh, stock yi bëri na mais tamit bu ñu ñi fas yéene approvisionné wu ci koor gi ndax du gàllankoor wala sax mu rupture ci marché bi. non non loolu du gàllankoor dara ci marché bi amul benn risque de rupture au niveau du marché ça aussi il faudra que ñu wax ci te mhm. xam nga information yi mel ni bu amee rek ñun ñi mën nañ ci jël naan waa dañoo yokk prix parce que béykat dañoo taxaw loolu moom nam lañ koy wax loolu amul loolu man da ko ku yokk soble ku ne da nga rek te ministère bi du ko du ko du du seetaan loolu aussi mhm. parce que ñoom commerçant yi nañu wax ne stock yi ñu yëpp mënuñ ko jaay ci une semaine mhm. te ñoom prix bañ ko jëndee du prix bu rëy boo xamante ne mën na ma ñu yokk prix ñu yokk prix au niveau di marché loolu moom yéen journalistes yi foofu tamit ngeen jàppale ñu si information yi mel ñëpp dafay mel ni ne marché amul soble wala la ñu jëndee dafa cher non il y pas de risque de pénurie il y a pas de risque aussi d'indisponibilité des produits loolu moom nañ ci waxtaan nañ ci ko jàpp léegi. Mhm. maintenant ministère bi def na benn réunion barki démb avec tous les acteurs. dans le cadre de l'approvisionnement correct du marché pour le mois de Ramadan. Mhm. xam nga mois de Ramadan ñoo xam ne c'est un mois de consommation la. ci wàllu ceeb diwlin meew tàndarma pomme de terre blé véritablement li ñu am c'est satisfaisant pour couvrir les les pour presque trois mois yoo xamante ne duñ ci am jafe tey ngeen wax waxi euh, sur euh, production maanaam euh, soble bi dafa bëri ci marché bi Sénégal ñaata lay am ci quantité production ak gu nekk. waaw pour le moment instant bi si si on de la direction mhm. ci wàllum soble moom. véritablement am nañ boo xamante ne war na mën a doy waroon na mën a doy boog Sénégal ci wàllu consommation. Mhm. parce que egg na ci pratiquement quatre cent soixante mille tonnes sur la base des de l'horticulture maintenant le problème que nous avons à ce niveau là c'est que quatre cent cinquante mille tonnes yu ne sont produites au Sénégal et ce que nous constatons c'est qu'on continue à importer de l'oignon au moins pendant quatre cinq mois olof gi mhm. loolu tam problème la parce que soit statistique yi problème wala boog li yàqu dafay bari mhm. te loolu day remettre en cause la, la question de, la planification des récoltes, la question de la conservation et des filles des animaux. Mm-hmm. donc béykat yooyu daal lañ am ci filière bi moment euh, présente mais wàllu production rek béykat moom def nañ effort yoo xamante ne tey bu leen gouvernement bi jàppalee ci wala secteur privé bi. Mm-hmm. ñoom mën nañu satisfaire euh, euh, production autosuffisance. Mhm. Euh, sànq dañ ko waxoon nañ ko sax ñu jëm ci li nga xam ne moom mooy exploitation bi tey jii qualité soble mbay mi soble local bi bëri na luñ koy ngañ ndax tey taxaw nañ ci gën cee liggéey. waaw qualité soble Sénégal vraiment bu ñu observé madame. Mhm. xam ne sur les cinq dernières années la qualité a beaucoup évolué. loolu mën nañ ko mhm. ba tey jii sax sama mission bii lay def si si terrain bi loolu bokk na ci parce que dañoo mettre en place des unités de conditionnement. loo mhm. xam ne dañuy prise comme ni ñuy conditionné ko def ko dans des sacs de vingt cinq kilos comme oignon bi ñuy jógee bitim réew. Mhm. loolu moom lañ def ministère dina ñëw incha allah semaine prochaine quinze treize pour inaugurer loolu. donc qualité commerciale production véritablement euh, ñu ngi koy amee sotti euh, parce que. Euh, on de s'adapter par rapport au contexte parce que ñun euh, avec la véritablement y a un nouveau mode de consommation ñu ñu bëri ci appartement la ñuy dëkk mhm. voilà euh, des trucs de cinq kilos la ñuy bëgg wala dix wala vingt cinq kilos te boo gisaan suñu production de ñëw ay sac de quarante kilos xam nga ne du yow du man kenn du jënd sac de quarante kilos mhm. dañ koy téye condition da ko def ko sac de vingt cinq donc yooyu yëpp ñu ngi koy def ak euh, en collaboration ak béykat yi ak yenn partenaires yi pour ñu améliorer la qualité la qualité commerciale de l'oignon du Sénégal. Mhm. état yàgg nañ ko dégg muy wax autosuffisance alimentaire ci bépp fànn tey jii ndax soble gi tey jamono ji ngeen di wax ne euh, ci marché bi bëri na fi mën nañoo wax ne yéen taxaw ngeen euh, ci fànn yooyu. bon moom laa doon wax sànq ma ne bu ñu bu ñu jëlee chiffre horticulture mhm. soble moom nous sommes autosuffisants. parce que boo xoolee les besoins de consommation du Sénégal euh, annuel. Mm trois cent cinquante mille tonnes moyenne. da amoon trois cent cinquante mille euh, mu fi consommation mën na mën na mat Sénégal. kon de euh, vingt cinq mille près de trente mille tonnes par mois. Mm -hmm. au niveau de l' agriculture euh, on nous dit que quatre cent soixante mille tonnes donc xam nga dépassé na trois cent cinquante mille. Mhm. on l'a Et pourtant, o continue à importer de l'oignon. donc cela loolu aussi études yu moo ne yu woon bëri ne liy yàqu dafay bëri beneen mbir mi moo aussi mooy que ne euh, pour ñu joxe statistique yi leer par rapport ak production bi aussi loolu tam jafe na mhm. donc ci wàllu autosuffisance loolu mën na nekk mën na nekk ci pomme de terre mën na nekk ci légumes yu bëri et cetera parce que légumes yu bëri boo xoolee importé tuñ ko fii lañ koy defee donc autosuffisance am na foofu mhm. donc li des ci wàllu horticulture li nga xam ne muy secteur privé muy état war jàppale secteur filière bi mooy la conservation le froid conservation des engrais adaptés pour que véritablement beneen mbir mi aussi mooy financement yi banques yi ay banques agricoles yi itam ñu gën a privilégier les modes de financement pour que nit ñi ñeme aussi euh, dugg ci filière mais autosuffisance moom mën na Mhm. tey soble day jóge bitim réew ñëw fii euh, ñun suñu soble mi euh, ñu mu ne gàññ ci marché bi ndax yéen it euh, yéen a ngi dox ci yóbbu soble bi jéggaani ko wala jaay ko bitim réew. waaw ay exportation de boo xoolee ci dugg jóge fii suñu Gambie rek. pratiquement mhm. ngi Poto fekk naa fa ay Gambien yu bëri yëpp yóbbu Gambie. Mhm. mën nga xam ne exportation yóbbu ay Mali. Mm-hmm. am na yoo xam ne yi nga xam ne yooyu yi nga véritablement ñu ngi suivre des acteurs mm-hmm. qui ont exporté vers l'Espagne présentement ci campagne bi gis presque quarante conteneurs qui sont partis mm-hmm. là là là je vais Podor il a deux conteneurs qui sont qui, qui, qui vont pour que yooyu yooyu dem yooyu donc c'est dire que euh, yi am na des des qui arrivent euh, soxla Sénégal parce que période bi au niveau seen niveau tamit dañu soxla bu Sénégal. Mhm. et loolu aussi day day day démontrer aussi la qualité de l'oignon à voyager quoi. ci waxtaan gi ñu am ak ki jiite interprofession euh, filière oignon xam la xamal nañu ne ñoom lu ñu bëgg jamono ji mooy ñu dakkal euh, ba benn waxtu euh, lii di agro agrobusiness bi ndax loolu ànd ngeen ci. waaw xam nga agrobusiness bi ça a été toujours un problème par rapport aux petits producteurs parce que petit producteur day jàpp rek moom saa bu euh, amee jafe-jafe ci wàllu commercial et cetera c'est agro business bi la. Hmm. mais euh, hier euh, dem rencontré naa que présentement li nga wax mooy à l'instant T amul benn agro business bu nekk di commercialiser et pourtant ñoom ñu ngi donc c'est pas ça pour cent le problème parce que su fekkee ne le mois d'avril c'est c'est c'est c'est mois de pic donc c'est toujours comme ça maintenant le problème des agrobusiness au niveau du ministère ñu koy bàyyi xel trop parce que dañu wax ne. euh, la régulation ou bien les ailes des importations c'est pas pour les si fekkoon ne agrobusiness rek kenn du ko def. Mm-hmm. l'état du Sénégal veut accompagner les petits producteurs dans la commercialisation. au début c'était entre l'importation et la production locale. olof ah, mm-hmm. cette question a été véritablement définitivement réglée maintenant reste la régulation entre les acteurs c'est-à-dire au même <clears throat> Sénégal parce que ñoom ñëpp ñu produire. Mm-hmm. maintenant la régulation qui reste en ménage entre les deux maintenant nous au niveau du de de l'ARM dañ leen di envoyé seen benn nous envoie le planning de culture période de récolte et dañ leen di conseiller pour que ñuy décaler seen période de récolte presque vers le mois de juin juillet day fekk béykat ndaw yi jeexal te véritablement ñoom aussi ñu ciy def ay ay jéego yu bëri soo boo jëlee wàllu engrais bi chaque fois dañ koy wax ne baykat béykat ndaw yi amuñu capacité de stockage ou bien investir dans des champs de yow mën nga ko def donc investir dans les petits points et il l'a fait donc moom lu muy bay en majeure partie da koy jël yëpp dugal ko ci chambre forte bàyyi béykat ndaw def ba pare mu soog a ñëw donc loolu mooy liggéey bu ñuy def régulation bi ñuy def entre ñoom ak euh, les petits producteurs. Mhm. sànq wax nga ko donte da ngay waxtaan ak euh, ñoom ñi nekk ci interprofession bi waaye ñoom sàkk woon nañu waxtaan ak euh, ministre bi nga xam ne mooy seen tutelle ndax li ni mel fas yéene nañ ko amal wala sax pare ngeen ci taxaw ngeen ci thème pour mu am. loolu dañ koy lu parce que wax naa rek ko démb ñoom ñu def demande d'audience pour naan kon ministre du commerce parce que ñu on est là pour le ko du ministère du commerce. <clears throat> qu'on rencontre et cetera maintenant ñoom peut-être bu ñu ñëwee wax ci kanamu ministre yi dina gën a peut-être am am am am résultat loolu dañ koy def parce que des acteurs et très normal. Mhm. donc loolu ñun dañ koy encourager. que ñu mën a rencontre ministre du a rencontre président de la république on applaudit et parce que ça nous aide aussi ci suñu liggéey. parce que mhm. nous en technicien dañu ñëw rek jox autorité bi. autorité bi mën na lire mën na am lu mu comprendre am lu mu bañ mais béykat bi a. gën a gën a mën a ñor donc loolu on a aucun à ce niveau là nous sommes des partenaires ak ak ak à chaque fois bu jëlee décision ñun on est dedans pour que véritablement mu mën a dem. Mhm. Babacar Sembène ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ok ñuy fàttali ne directeur exploitation agence régulation du marché euh, lañ doon dalal tey